ñu leen di leeral ne leen am na ci liggéey bu nekk boo xam ne mooy comme nañu ko xam bu sottee rek dana leen leen ci xam ne bu sottee rek dana leen gën a jege ngeen gën a jege seen mbir ba saa bu leen neexee lu ngeen ci bëgg a saytu wala ngeen bëgg ko caa xam da ngeen a xam naa ne géej gi yàgg na waaye mënu ma caa ñàkk wax muy assainissement bi ak inondation boobu am Touba ñu bëgg koo layal te man du ma ci d'accord ndax li tax mooy moom Abdou Lahad fii même pas deux mois ci ginnaaw ñoo fi indi directeur ONAS moom ak ñaari adjoint am commission ki yore communication bi ak ki yore santé biñ ko fi indi def seeni bi dafi tàppale ba def am mobilisation bu mag yóbbu ko fu nañu yóbbu ko fa ci dëkk bi wan ko li fi nekk lépp tamit problème dëgg la waaye bañ ko defee ba pare ci noonu ndax bañ noppee la njëkk a mooy dañ bassin bi nekk Daaru Marnaan euh, bi nekk Kër la ñuy jël yóbbu ko Daaru Rahman mu jàll ba pëfti ak bilan ba ak tiwoo yaag lépp bañ ko defee ba pare daal di ñëw pëf di nag am espace buñ fa wax ne fii la ñuy def ndox mi ba ñëpp ñu accepté ko espace boobee tey dédommagement boobu dañ ne dédommagé xaalis bi te ñoom dañ ne waa dëkk boobee suñ seex suñ Muntaxa ko soxla kon kenn du dédommagé kenn te xaalis boobu jox na xaalis boobu dugg na ci loxol ñett ñooñu yor commune bi maire ak ñaari action yooyu xaalis baa ngi seen loxo génnut léerut ba fii may wax ak yow kon buñ ne sëñ bee ko soxla sëñ bu ko soxlaa it moom li mu war a def def na ko ndax dédommagé na leen muy ONAS ñaareel ba ñoom bi ñu defee loolu ba pare suuf sañ ñu jëlaat suuf sa wëlbati ko waat di ko jaay di ko jaay sars 7500 camions yi camions yi di ko jaay vingt a rus loolu te defuñu ko ko toog leen lu leer ba daan ñeel mama soo ko ne déglu ma da ngay wax lu la neex képp waaye dëkk bépp ci déglu la lañ toll sa déglu ma jooju moom juróomi at yëpp moom la nekkee ci dëkk waaye réussirul fi dara kon ma jàpp ne lu mel noonu su amee ñun ñëpp ñu teg seen bët ngeen wëlbatikuwaat Daaru Marnaan gii barki dem moo njaay ak coow la fa am ak jafe-jafe yañ leen yóbbi te lépp ma xam li ko waral ndax ca départ ba daaw ak daaw jéeg yëpp fii maa ngi moom ànd nañ tànk tànk li may wax bakkan lay laaj ak commanda sapeur pompier bi ak commissaire Jara bi fi nekkoon ak Moudou Mbacke Fall ancien euh, euh, Moudou Mbacke Fall euh, archivin mu nekkoon sous préfet bu Mbacke ñu taxaw ak ay ak commission bu jóge ONAS ñu taxaw foofu booba la ñu jàng séga dëkk bi pour xool ndox mi lu ko fi mën a saafara Mm, ca jamono yooyu la sëñ Modou Kara yabaloon ndaawaam ñooñee biñ ñu xool ko moom ci boppam ko defalee ay regard ci askan wi doon jiyee ndax day yàqal askan wi te fii mu nekk nii bu fi nekkee liñ ko fi mën a jëlee mooy ñu defal ko ne loolu du yomb ndax lii dafa bari ñu ne kon a def mooy defal ko ay ay dugg ci assainissement bi di mën a say wersi foofu di dem ci yoonu pët ndax ndox mi dafa bari ñu ne kon loolu du liggéey bu mën a gaaw du liggéey buñ mën a profité kon faawu état ciy jàpp kon loolu liñ mën a def mooy def procédure boo xam ne dañ koy def état de continuité ñu ne d' accord looloo taxoon mu yeex bi ngeen ko defee ba pare wëlbatikuwaat ma xëy xëy dégg ñu ne dagg nañ ko def ko ab ngir lan station ba nekk ki ko moom 3 di jaay te boobu ñi ngi lay wax ne yow sa bopp dégg nañ ñu ne ñi ngi koy gëstu nag bu ñu ci amee nañ dañ ko ne fàng ci rajo ne actionnaire nga ci wala boog am na ku la jege ci bokk koo xam ne ci sa part de responsabilité la ci bokk kon bu ngeen ko daggee dugal ko ci askan wi mu demee nii ñu fàtt ko ñu xëy di leen jaay doole yéen a ko tey ku ne sa responsabilité nekk ci da wax lu la neex parce que yaa bind décret bi tax loolu mën a am te yaa yaa yaa yaa bi autorisation bu tax bu tax ñu mën a dagg tëli route nationale numéro ndox mu toll noonu dugal ko ci biir askan bi nga ne yëguma ko loolu moom tegul maanaam wala boog mooy kon sa ñàkk xam-xam gi may waxat ak def mu leer naan ci askan bi ma jàpp ne kon loolu bu amee nga gis commune bi ni muy doxe nga xool commune bi ci boppam yow sa bopp yaa ko tabax yaa gañe woon entreprise bi ko yow yaa ko gañe tabax ko ci jamono yi sëñ Saliou ay kilifa def ci intervention ñu jox la ko nga tabax ko bi nga ko tabaxee ba pare yow ci sa bopp ñetti at yi yow mënoo am climatiseur installation commune bi baaxul ba fan yee ci ginnaaw tàkk jàppit te loolu mënoo koo réparer parce que ci installation ba la ku def loolu nag te tay ko xam ko ndax xalaatoo woon ne commune bi dana mujj ci say loxo moo tax ba ngeen koy def nit ki lu muy def da ko war a sàmm te yàlla tax bu leen ko defee ba pare wëlbatikuwaat kon tey bu bëkkee commune bi indoon na ba ci buntu bi kenn mu amut foo jaar ñu bëgg koo layal du ma ci d'accord parce que yaa nekkoon ingénieur bi yaa nekkoon yaa yaa yaa yaa ko tabax am ngay ingénieur am ngay architecte am nga lépp jumtuwaay yi ñu war a am yépp am nga ko soo ko xoolee tabaxee ko noonu tey ba mii ba mu am problème ndox foofu mënoon ko liggéey beneen liggéeyeen wudut noonu ndax bu ngeen ko liggéeyoon ba mu jóg ndox du fa dugg te loolu yaa ko gën a xam kon li nga liggéey rek moo këppwaat ci sa kaw tey kon nañ bàyyi jaaxaani foofu nag ñuy wax ci station Daaru Xuddoos boobu nga xam ne ñaari euh, camion vidage lañ daan jël chaque alxames ci ngoon ñu vidé ko ba mu seet wicc ndax li fi suñu Cheikh Ahmad lay daan jaar di julli ji nga xam ne jarul leen woon sax ak suñu Cheikh Ahmad lay li mu daj ci dëkk bi ak li mu defal Serigne Touba lépp ci dëkk bi te ñoom tey jii bu ñu jotee ci dëkk bi mooma nga wëlbatikuwaat fa muy jaar da jëru leen woon sax def ay canal yi mel noonu dañ ko daan ngacc buñ ko ngaccee bu fa jaaree ajjuma julli ji vendredi samedi dimanche gi muy yendu ji kër suñ Tuubaa ga bu tawan altine ci guddi bala mu faa jógee te day alxames ci ngoon te li ma lay wax ni ñëpp tamit seen bët comme nag ñoom ginnaaw yàlla suñu borom def na mu jiitu ñun yàlla yàlla yokk leeram foofu moom ba adduna tukki dootu sukk ngacc xam naa ne moom jaar te doo jaar bari na problème yi bari na te lépp ñoom ñoo koy teg askan wi ba noppi bëgg a dox askan wi ak Macky te ñoom booy dem ci Macky Sall lu mu xalaat ci lu sew ci dëkk bi ñu waaye falal ko ko ba mu woyof tooy lépp lu mu bëgg def ci dëkk bi ci lu naka sudut noonu ñu ànd ca ak moom defal ko ko woon ginnaaw te albee Sëñ Tuubaa te ay électeurs doo nga tax Macky di leen dabu te électeurs yooyu mi koy bëgg a ñàkk ngir ñii te moom ci bopp ñàkk na leen ndax juróomi weer lim ñu def lépp mënu ko ci réparé kon bu ñu wëlbati koo waatee mu jox leen bopp yow koo xam ne yow bi ngay euh, jox ay la ndax listu sëñ bi nga war a jàlle jàllu nit ñi dañ ko abandonné nanguwuñ ko woote ngir contre la institution fal la parce que sëñ bee la jël fal la par décret conseil bañ àggee ci réunion ba dañ ñëwoon bu nañ teg kees yoonal comme ni maire yi def ñu jox la ay information ne la bis doo doo fanaan nga xam ko lànk dañoo xëy takkal lam ràng taxaw na sëñ bi neen lii la bëgg kon yow xam nga ne ca départ ba xamoon nga ne lii la man a def mooy nga gën a wane résultat waaye boo wane bu résultat xam nga ne nekk njëkk fii la la nit ñi doon xaar na xamoon nañ ne taloo dëkk bi te mënoo euh, ay procès la ci dugaloon ba nga ci jógee référendum yi da te xam nga dara ko parce que da ngaa ànd ak ñu nit ñi bëggut parce que taluñu dëkk bi defaruñu dëkk bi ba nga ca jógee da walbatikuwaat mboolem élection yi fu ma sa organisé da nga ñàkk kon yaa war a sigg xam fi askan wi nekk muy nga jëfal leen lu wér duñu mën a teg seen baaraam parce que dañoo som dañoo lot ci askan wi te boo jàppee ne ñi dëkk Touba majoritaire Touba bi képp mooy mooy yaa ngi nax sa bopp Ndakaaru googu boo fi génnee naka sa waaye na nga xam ne ku yàlla bind mun laa régleel dëkk bi fii juróomi weer ku la ko wax waxu la dëgg te man moom ba soobee sëñ Tuubaa lii ma gis ci dëkk bi xam ne bu addunay tukki du réglé parce que jëloo defal Tuubaa dara te da ngaa àgg ci dilaak ñi tam ndax li Moustapha Niass wax lu leer la ku ko bañ it ilaa Tuubaa bi ci ngay jaar kon gëm nañ ne ñoom dañoo bañ Tuubaa te Moustapha Niass li ñu waxtaanee ci seen saal yi képp la wax ci mbedd mi waxu fa leneen kon bàyyi leen xel ci loolu te ñu jàppaat dëkkub suñ Tuubaa bi te defar ko te xam ne Macky Sall lii muy def nii du ko may dara du ko may da ko yàqal képp jaay doole geeg xalantoo gi nan a nit ñi te jéem a retrouver waat jéem a xool li liggéey li avantage réew mi mu nekk ci état de continuité fi am a wax mooy am kon loolu buñu ci dee meri nit ñi wala ñu bëgg ne nit ñi ci lañ war a dépendre ba wote leen ñu ngi nax seen bopp palaa yo sa palaa yoonu yokkute ba mu defoon su ko continué woon kon lii lépp du ko dal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu